salaamaaleykum mbokki internet Khass TV ñoo ngi am mbégte ci ànd bi nga ànd ak la chaine de vos choix ñoo ngi leen di ziar ci màggal bi ñu jógee di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala nanguñu suñu màggal ci barkeb xaadim rasul ay nag ñoo ngi nii diwaanu yëmbal benn baraak kër Serigne Abdoulaye Diop xaas yaakaar naa ni mbokki internet Khass TV dañoo fas yéene bett kilifa gi am ak moom waxtaan bu yaatu waxtaanu xam-xam waxtaan bu mucc ayib sama caméraman dama bëgg nga topp ma ndax bëgg naa mbokki internet Khass TV. Euh, tey gis lu yéeme ah tey gis lu yéeme ayca salaamaaleykum sëñ bi. yaa ngi lay def. Modou Ndiaye da ngeen di. baax waa Fass TV ah yéen tey bett ngeen ma de. tey dañu laa bett moom. ah yéen a ngi ci leen na ngeen def. wér-wér tey. sant yàlla ba yéen a ci jàmm. yéen a ci jàmm bu baax a baax. naka coono yi. alhamdulilah alika macha allah. bisimilah na ngeen def. alhamdulilah. jërëjëf ñu ngi ci dara. da ngeen maa bett xanaa da ngeen ma may ma ñëwaat. ah waaw. ah waaw li moom rafet na di sëñ bi ah. waaye hmm. rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla di jiit yonent bi di leen dalalaat yéen waa Xaas TV di leen wax bisimilah. bisimilah Serigne Ablaye Serigne Ablaye sama première question mooy ñëpp xam nañ ni fajkat nga ñu lay laaj sa xam-xam bii nga yor. bi ci dimbali jaam yi di ci faj euh, jullit yi loo doon la wala lu la feeñu la wala euh, lu la dab la yàlla rek boo ko déggee baatu xam-xam mooy baatin baatin buñ ko waxee mooy li nëbb xam nga li nëbb mooy li nit mënta teg bët di yàlla mbirum yàlla mooy coobare yàlla dañ koy mën a dàq foofu xam ne ci coobare yàlla rek lañ ñëwalee ñu ciy dimbali doomu aadama daal lañ ko mën a jàngatee ñu waaw Serigne Ablaye gis nañ ni yow en tant que fajum fajkatum euh, cosaan gis nañ aussi ñu jox la ay diplôme waaw ma lay laaj Serigne Ablaye fajum cosaan moom jar na joxe diplôme ak diplôme ak diplôme fan la jógee. xam nga dafa am loo xam dama ko gëm. Mhm. mooy àdduna nit ki lu mu nekk. Mhm. preuve da ci am solo. Mhm. xam nga dama mës wax ci benn télévision di wax ni Sénégal. Mm-hmm. bu ñu defoon réew bu mel ni Gambie mm-hmm. lu tuuti li ñuy def Sénégal dina développé mm-hmm. parce que Gambie dafa nekk dëkk boo xam ne tey boo tëbee ni ci lii ngay dox utal nañ la ñoo xam ne kuréel goo xam ne ñoom loolu la ñuy saytu ko directeur ba ci ministre de la santé bi ci boppam fekkee yow ba jàll di nga toog ak moom bi ci moom lay jógee jaar ci président jaar ci moom jaar ci directeur bi mu signé ko kon daal sëñ Abdoulaye bu ñu juumul sa diplôme yi nga am Gambie nga ko jëlee waaw en am naa ci ñaari sama premier diplôme mooy. Mhm. permettre woon nañ ma woo ñoom waa Gambie. Mhm. man ma dugg am naa diplôme bi. deuxième bi mooy bi nga xam ne dajale nañ fajkat yëpp. Mhm. yàlla dogal na ne moom 2015 2016 dañ ñu kuy faj man maa la ci jiitu na. sëñ ma lay laaj ci diplôme yooyu ba xam état wu Sénégal reconnaître nañ ko wala may nañ la opportunité comme ni ko doon defee Gambie dugg ci hôpital di faj ndax sa diplôme yi nii ba xam Sénégal nangul nañ la loolu. waaw may nañ ma ko mën naa ni ndax. bëri na tey am naa ci ndeysaan ay hôpital yu ma tudd seen tur mhm. des fois sax ñu consulter nit ni la demal ci sëñ Ablaye moo la mën a faj loolu moom gis naa ko lu dul benn du ñaar du ñett mhm. da nga ñëw ñu consulter la xam ne yow mi lii mënuñu ci dara comme par exemple ku ñu dem ñoom ba ñàkk yaakaar mhm. ni la léegi kaay ñu jox la numéro nga dem ci kii ñu faj kon man naa ko firndeel foofu posé ko di wax benn la rek faj bee ak faj bi benn day bii day loo xam ne ñun ñoo dem bopp te it man li may yox rek moom laa gën a gëm ndax li tax ma gëm ko mooy ma damay wax ñee lu ñu mën a faj xam dem ba tële mm-hmm. tële mm-hmm. parce que tey mën nañ cee situer benn euh, faj boo xam ne tey hôpital mënuñu ci lu dul dagg lu mel ni jabet mm-hmm. nga jabet dèjà bu demee ba tollu fenn fi dañ naan mënatul wér dagg tànk station ñoom bu ñu demee ba paralyser loolu lu ñu ci wax mënatuñ ci dara tey ñun yooyu yëpp ñun dañ koy faj may faral di wax ni feebar toujours bul xool feebar bi day bi li ko waral ndax loo gis ci àdduna fondement ba xam nit dèjà bu jabetee li nga war a xool mooy dëgg dëgg li indi jabet bi lan la parce damay faral di wax ni ndëg bu la jamee ci suufu tànk mm-hmm. ci suuf la la jam mais yaram bi yëpp ko yëg mm-hmm. léegi nag boo bëggee faj yaram ba ci bopp bi lu tax mu wér mais boo ruccee ndëg ba rek nu muy def day wér mm-hmm. yaakaar naa ni mbokk internet Khass TV loolu leer na ñoo ko déggandoo sëriñ Ablaye laaj bi nag nekk na laaj bu am solo laaj bu soxla bu bu askan bi soxla mu leer laaj bi dafa jëm ci lii wut nekk li li ñuy wax wàllum rab mm-hmm. rab mm-hmm. rab sonal na lool askan mi mm-hmm. sonal na góor ñi ñii di am ay coro rab jigéen ñii di am ay farum rab ñii di yàqule ndax rab ma lay laaj tey euh, sëñ Ablaye fajum rab ba xam jar na gis nañu sax laay wax ñuy faj rab di tëral ay gàtt maanaam lu ci mel ni ay xar wala bëy ma laaj ba xam fajum rab jar na rey jar na tuur deret moo tax en général ñaar ñi nga xam ne tuur nañ deret <coughs> da nga leen di yërëm mm-hmm. parce que faral di wax ni rab bu la jàppee mm-hmm. di metti sa tànk di jam nga dem jël xar wala bëy nga rey ko xam nga tànk yu jam la wax mm-hmm. war day far wala feebar bi day far yokk ko en toujours fok nit ñi di ci bàyyi xel xam nga tey sëriñ bi nga dem mun la génneel sarax bi moom defendre na boppam parce que sëriñ bi moom sànq rey na rek danger amatul ci moom parce que rab bi naan na dret ji kon amatul benn affaire bu muy wax ak sëriñ bi léegi moom li ma parce que déjà sax mën na cee yokkal sax sëriñ bi loo xamul mhm. parce que day bëgg tout le temps nga koy reyal deret kon daal deret boobu fajkat di tuur ñoom pour aar mais pas aar ki ñuy faj sëriñ bu lay tuurloo deret mhm. mu ngi lay sonal hmm? parce que tuuru ko ngir yow de mais du ko tuur ngir moom rab sànq yaa ngi tuur deret wax naa la ko bu ma naanee deret bi moom ku ko tuural dana kontaan ci moom day mel ni koo neexal rab moom sànq yaa koy tuurloo da nga koo neexal te gisuma xam nga damay faral di wax ni nit ki li xam ne yaa ko gën mhm. jarul neexal jarul tiitaroo rab jinne du dara boo déggee rab ak jinne nag baat bi dana jaaxal ñu bëri mhm. xam nga day mel ni nga ni doomu aadama ñun ñëpp ay doomu aadama mhm. mu ngi mel ni nga ni nit ku ñuul sinuwaa ba nit ku weex ba teewul ñun ñëpp ay nit lañ waaw ah, loolu mooy diggante rab jinne même chose la rek benn baat bi kon yow sëriñ Ablaye booy faj ab rab doo tuuti rek du ko def musuma fajal nit rab tuur deret loolu moom xalaatuma ko ci àdduna waaw kon sëriñ Ablaye ñi nga xamante ne souvent dañuy faj rab ñu dégg leen ñuy tëb di yuuxoo ko di def seen i bagage kon ñoom xanaa faj rab yi ñu faj ak rab yi nga faj yoo dañoo bokkul eh, xam nga loo ci gis mhm. xam nga faj rab mhm. génne ko définitivement mu dem bokkut ak yëngal rab mën naa la jox garab boo xam ne boo ko defoon fii sa kër ko am rab bu duggee daal mais loolu bokkul ak faj rab mhm. xam nga yëngal rab mës naa fi wax gars yi di reetaan dama ne leen man fajkat yi ma jot a ji Sénégal ñuy faj rab. Mhm. koo ci moccoon mu daanu comme ka faj moom na muy def. ñoom fajkat rab yi. man maa la wax li man sëñ Ablaye maa la ni te buñ ko weddee yéen waa Xaas TV laa may loolu. waaw ma woo. Mhm. ma ànd ak yéen. Mhm. yàlla seere na ko ku ci mocc nga daanu. waaw sëriñ Ablaye. beneen laaj bi mooy gis nañ la ngay tàngal ndox ci kayit des fois nga ciy segg café wala nga ci ataaya wala aussi nga toj ay xotu butéel di ci dox. loolu ñu lay laaj ba xam. luxus la wala ay jinne la wala ay rab la waaw damay yee foofu nit ñi tuuti xam nga luxus lu yàgg mënu ko lu yàgg mënul luxus boo déggee baatu luxus mhm. maanaam mooy li ngay def léegi mu maanaam gëlëmal nit ñi def ko léegi xeeb xippi loolu jeex mhm. loolu mooy luxus mhm. bokkut ak li nga xam ne tey boo ko bàyyi woon ci taal bi ba bët set na lu mel lay mel du changé maanaam damay faral di wax ni liñ ciy tufli weesuwul baatu alxuraanul karim kon sëñ ablaay carton bi ngay jël teg ko uh-huh. ci safara def ci uh-huh. ndox uh-huh. safara sa lakku lakku ko ndox ma tuuruwul loolu alxuraan la waaw xam nga day firnde rek nii liñ ñi lépp a ngi ci alxuraan loolu lay firnde maanaam da ñun ñoo xamul dese dëgg dëgg luy alxuraan sëñ Ablaye loolu rax rax na ay luxus ak ay jinne waaye xoolal maanaam maanaam maanaam li ma lay leeral dama bëgg mbir mi leer laa wax waaw xam nga li ma lay leeral jël carton def ci ndox. waaw ko ci safara bu boy ba yanj nga ciy ataay di ci seg kafe. waaw sëñ bi foofu leeral ñu fa waay mais mais alxuraan moo gën jinne. alxuraan moo gën lu yàlla moo gën a tedd lu lu ne ci àdduna alxuraan moo la gën a tedd. Mm-hmm. kon war naa xam nga tey day firndeel ni alxuraan ku ci sax rek mën na laa teel ak. xam nga dèjà li ngay tufli ci kayit bi. Mm-hmm. maanaam wallaahi. c'est-à-dire xam nga dañoo gaaw ci. waaw li ñu xam ko. xam ma ko waxoon nga gis tey ñeneen ah. eleku ñu firndeel dëgg-dëgg gi sax tam ñu indi ci ay jinne dama bëgg Sénégal ñu xam ni toujours dama ciy insister ci loolu mhm. jinne du dara chaque jour ma wax ko parce que li nga xam ne tey yàlla seere na ko li ma añee mënula koo wax am saa toog fii dégg ñu ciy wax sax ay quatre-vingt-quatre cent nangami jinne ñu ciy wax ñan wax ñan ñan xam nga ñan maanaam man sa wax du ma ko làkk-làkkal ci gàttal daa mel ni yeneen sëriñ yi ngay waxal del de non xam nga ak maa bëri xarit ci dafa am ndeysaan euh, dama mos a dem ci benn resto Mhm. dugg fa daja fa ak sama benn moroomu sëriñ mhm. ñaari sëriñ mhm. mais jour boobu boo ñu gisee da ngay mel ñun xamante nañ ay at ku ci nekk yaa ngi naw sa bopp ci li muy liggéey mais dama bëgg xam ni métier bi am na loo xam ni may sunu borom da ciy ànd gis nga maay diw maay diw may diw maay diw amul njëriñ ne nit ñu waxal moo ëpp solo xam nga tey boo toogee euh, sa kilim tiim la sa kilim tiim la nga toog sa saal rey yu xonk say morso yu xonk nga may xalif nangam. Mm-hmm. loolu mooy wax ji yàqu la rek. Mm-hmm. xalif kay dañuy dajale. waaw sëriñ Ablaye balaa ngay dem foofu. Mm-hmm. tegal sa loxo ci. carton suukar bi ngay ataaya di ci seg café. loolu damaa bëgg mu leer muy lan. alquranul karim dama ne la. fatiha bi ma ciy tari ak beneen aaya bi ma àndal. beneen aaya bi est-ce que du affaire de luxu sax affaire yëngal ko ah! xalaatuñ ko ci na ñun. parce que ñun ay jullit lañ. Mm-hmm. man damawuma lu dul alquranul karim yàlla xam na ko fu ma mën parce que amul lu ma ci mënta def. est-ce que parce que dama ko xam wóolu ko. Mm-hmm. te jinne ja ngay jaamoo ko yaakaar wallahi alquran la wóolu. Mm-hmm. alquran a tax ñu mën a nopp jinne alquran a tax ñu mën a jàpp jinne ni ko génn ñu génn. loolu moom nekkul problème bu ci am. loolu moom man maa la ko wax. deuxièmement comme li ma lay leeral noonu rek. xam nga tey defe naa yéen ñi jàng nasaraan man geen koo ngeen def concours xam nu ngeen koy waxee ba diplôme génn ñu ni kii moo man mhm. waaye mais pas nga toog sa kër rek ray sa gannaaw say yu xogg te nga kon daal sëñ Abdoulaye yow da nga bëgg wax yaay xalif général kullu fajkat non ah, am na sens kay wala ah. koy wax xam nga ne loolu nekkul parce que tey boo ne yaay xalifa général kullu fajkat mhm. te yàlla xam na ko yow man gisuma man boog mu faj rab mu faj rab laa de mu génn ci nit ki amul kan faj rab non xamoo tey <laughs> ndeysaan li ma lay leeral xam nga dafa mel nag am na koo bëgg a waxanteel xoola aw ma mu faj rab mu faj rab yàlla seede na faj rab xam nga ñuy faj rab Sénégal bari na bari na waaw am na ñoo xam ne li ñuy def macha allah mën nañ ko mhm. mais dama la bëgg a leeral li mel ni kan ñun ñoo diisal xam nga doo situé parce que mbooloo bu ko da mhm. nga koo xeeb keneen ki mhm. daanaka bu ma am na ñu mën a faj nit ñi dufuñu am nañ seen i xel ak seen i xalaat di xam mais tey boo toogee ni maay xalif général kullu fajkat yow ma ko wax xam nga ni gëmoo ko xam xamal tax gëmoo ko sa saal ba nga toog di wax benn wala boog fa toog rey say nga yor say moo tax moo tax nekkoo xalifa xalifa dëgg kay du neexal jinne mais xam nga tey boo baree ay soppe pour nañ ko am ko ay soppe ci àdduna mhm. ñoom ñoo lay woo di wax sëñ diw de yow la yow diw yow la yow ma ne leen barke alquran amul benn bu ma ci déglu am na un jour dañu maa envoyé émission bi toute la seetaan bàyyi ko parce que amu jot sëriñ nga xamante ne dañuy faj ci wàllum euh, tubaab maanaam les médecins xam la ko médecins hmm. ñoom bu ñu demee ba tëlee sànq wax nga ko say biir wax bu ñu demee ba tëlee dañ naan dañ lay yebal ca kër sëñ Ablaye Diop wala sa kër diw lan moo tax yéen ñi nga xamante ni yéenay fajkatum cosaan hmm. ab sëñ Ablaye Diop bu demee ba faj kii kat mu tëlee du ko yabal ni ko demal kër baay Samba diw wala kër baay diw lu waral loolu seen biir. non am na suñu biir. ah. Hmm. yow da nga koy def. bien sûr. mës mës nga yebal nit ci nit am na non man mësuma wax dëgg yàlla ku nekk sa bàmmeel dañ yebal nit ñi ñëw mais ndeysaan am na ñaari sëriñ. Hmm. yàlla xam na ko ak yonent bi li ma wax ni benn journaliste mën na koo seede. en général lu ci ëpp dafa may woo sax ni ma diw ak diw ak diw yabal naa ko ci yow. moom journaliste bi. déedéet moom sëriñ bi. Mhm. te li ma lay wax ni journaliste di ci xam lu wér. pour wax la ñun dañ koy def. Mhm. parce que àdduna nit man maanaam nit manewul lépp matalewul lépp ku ci nekk ak fa la yàlla maye. mais fi may waxee rek pour nit ñi di ci bàyyi seen xel. Mhm. pour nga xam ni faj rab ak sayloo rab bokkul ça fait deux. nee na la rab li nga takk sax boo ko jigee man na say di wax rek. bokkul ak par rapport nga ni ko nipp mu ne nga ko génnal mu génn dafa simple. yuuxu jarul jarul dara barki ti bi du lu tuuti xam nga un jour euh, daf ni xam nga dama tudd tuur tooñ baaxul. ah sëñ Ablaye non mais màggale sëñ Ablaye dafa am un jour daf ni nga wax. moom dina xam déedéet moom dina xam ni moom lay waxal. Mhm. dafa am un jour mu ni nit ñi moom ni muy tuubalee rab na ko ma est ce que kenn tuubal na ko man ko xanaa man li ma tuubal ci ay rab mu ko mu duma ko compter ci àdduna dinaa leen dugal loo ay image yi image yi image te bi ci topp amul lu mu leen mën a wan comme preuve le la lii xam la amul bis bu ko defee rek ngeen ñëw ni ma sëñ Ablaye li nga waxoon amul bu weesuwul xanaa lu dul xam nga tey jël nit mhm. muur ko mbàjj mu diis mënatul nooy nga dóor fatt fattaat di ko waxal mu wax kooku yaa ko rey mhm. mënatul xamatul lu muy wax lan la parce que tey ki nga fatt ba mënatul wax mhm. boo ko ne sëñ bi liñ naan ku lay bëgg a rey la lay bëgg a rey da bëgg gaaw a génn da nga bëgg a am na yoo xam ne ñun sunu analyse war nañ koo def di ci bàyyi xel te aussi doo xool mukk nag lu dul faji fajeeg déedéet fii fi muy waxee rek ngay dégg waaye doo dégg fenn la fii la rab bi génnee wala fii la jaar man dinaa leen wan image bi ñuy génnee rab ci ngay gis muy génne di jaar ci tànk bi dafa simple yow fañ nga fi nit rab bi génn dem yoonam ba tey rab dugg na nit wax naa leen ko am na ngeen am image yi boo xam ni Italie la ko duggee mhm. am na moom deux ans ànd ak papaam dugg jóge Louga ñëw bi mu ñëwee yéen yéen wane preuve xam nga tey pour la jinne dooleem da koy naw ci départ bi mhm. mais boo ko mënee rek mu wàccee lu koy jin jinne ji nga tey ni ngay fàttee ni du nooy boo bàyyiwul mu dee noonu nga mën dafa fàttee jinne du nooy boo bàyyiwul mu dee I ko ci anglais I wax wax ci tubaab ma koy rey je wax ci espagnol la ci espagnol léegi nga di nga di anglais lu muy wax léegi loolu noonu koy def rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad haada salah allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi lu simple la mais du lu nit ñi jàpp diisal koo diisal mais diis na ci ko ko xamul mais diis na ci ko ko xam mais pour nit ñi di bàyyi xel rek xam ni lii day loo xam ni lu nit ñi taxaw di bàkku de des fois nga gis sax mel arène nationale comme mbër yi jug yuuxu fii déedéet yooyu dépassé nañ ko fi ne tey nit ki doo am temps toujours du ci moom topp di wax parce que tey yenn yi jot la am nit ko am jot moom chaque jour mën na topp ci benn nit ki di wax di wax mais man yàlla seere na ko aw ma jotam hmm. na ko ak yeneen waaw nga yaakaar ne ñun waa Khass TV duñu duñu créé benn concours boo xamante ni damay woo lu mat ñetti mbaa ñeenti pajkat ñu teg këyit sukkar ñu ataaya si ñu xool ba xam moom neel fajkat yi fii yëpp rek ba xam gis ko ci def léegi bu dee luxus la ki xam comme luxus la na leen woo yéen waa Khass TV leen lii luxus la bu boobaa moom mu wax la muy wax ca kaw man ma wax la may wax ca kaw ñu def ko ah xoolal bul wax benn sëriñ de wool sëriñ si rek sëñ bi daa mel ni man li ma doon bëgg xam nga lan la mhm. yàlla xam na ko ak yonent bi boobaa nag kuñ ci génne mhm. ñëpp d'accord di kii lañ ci génne kullu fajkat mhm. ñu dajale leen ensemble ñoom ñëpp ñu toog xanaa xamal bu ñu ko defoon médecin médecin moderne yi duñ ñëpp xam nga lu tax parce que dañ xam ne ñii am nañ benn maanaam gëm-gëm bu ñu am léegi déjà toog ñoom ñëpp ku ci nekk lay sa maanaam li nga xam nga àdduna loo gis la nga mënee da ciy am solo mais est-ce que ñu def leen examen yéen fajkat yu cosaan yi nekk bi Sénégal wax naa loolu am Gambie xanaa a nga tey bëri na ñu ñëw Sénégal yàlla seede na ko ak yonent bi Gambie lañ jógee daw xam nga lu tax yaay jàmbi doo fa woote ñetti nit di la rang te yebalowul ñu jël si la amul parce que day wax ni moom doomi dëkkam kenn du ko rey mais loolu am na solo mhm. mais jékki rek di doy na war daal mais na yow mi faj rab souvent yan jafe-jafe ngay jànkonteel ci kooku am rab ngay faj waaw métti na méttiwul mhm. mooy li ma wax rek mhm. cest di rab day loo xam ni maanaam sunu borooma ko may kàttan mu mën a dugg nit ci anam bu ko neex anam bu ko neex cest leen wax comme rab ni muy duggee nit xëy na suba nga gis yeneen sëriñ rab nu muy duggee xale yi xale yi surtout ci yi wala dama la ko wax su ma la ko waxee maa la wax lii tey ci mhm. sa émission boo ko dugalee mhm. di nga gisaat yeneen émission yi mhm. même chose la ñuy wax ma loolay sama problème fi mu ne moo tax bëggatuma sax wax même la ñuy wax ni ma lay wax niñ koy duggee xam nga dégg nga daal ñoom dañuy copier di coller dañuy copier si yow di coller si ñoom bari na ci xam nga rab dèjà ah. rab dèjà li ma lay leeral mooy Ablaye nga ni gars yi ci yow la ñu di def seen i bagage xaaral ma leeral la man li may wax man diggalu ma la xam nga li may wax yàlla xam na ko bala nga doon yéemu ci yàlla nga dajale fajkat yëpp ñu toog wallahi wal quran lii ma wax dinaa ko wax pour mu leer c'est-à-dire wax la rab ni muy duggee nit ak ni jinne di duggee nit bokkul da nekk rab sunu borom may na ko kattan mhm. tey bu la bëggee dugu ba jeex ndox mii nga xam ne te yaa ko tànk bëgg koo sàngoo moom am na possibilité chaque fois doon ndox te day jax soog ndox bi doo ko xam ne booy sango mu dugg sa jëm dégg nga bi am na possibilité doon jaan comme chose parce que dañuy gis nga xale booy faral di gis muy fu daanu di fudd mhm. rabam jaan la boo ko doon moc tey buy génne ngelaw li muy génne jaan lay doon par rapport bokkul ak jinne jinne fu mu la duggee toujours foofu day metti mooy ñi nga dégg ñu sama digg ginnaaw gi day metti wala sama tànk yi day ruux wala en général yu mel noonu sama biir day jam mais ñooñu buñ ma si yeneen sëriñ yi ñu ne loolu ndoxum siti la wala am na sëriñ si xamul lu ñu gaaw ndigg suy tàng sëriñ si léegi ku cat jàpp sax ñun la ndoxum siti bu fekkee daf la bëgg a sonal yow nit ki moom jinne mm-hmm. moo indi tension moo indi diabète xam nga feebar yooyu bu njëkk jinne moo indi tension moo indi diabète bien sûr ma ah, man li ma ci faj damaa xam lu mu toll mais sëñ Abdoulaye ñu ne suukar su yéeg day indi diabète euh, lekk lu niin guddi mooy yéegal sa tension. waaw léegi sëñ Ablaye nga ne ma jinne léegi tension nan lay dalee nit lu muy wax dugg naa di sangu génn daanu ci duus bi du loolu ngay dégg. wala dem na ca xew ba daanu na. wala jekki jékki na daanu na ku may wala tëdd na guddi yeewu mënatul loolu nga war a xam damay wax ni feebar bul xool feebar bi cause bi ngay xool bâtiment lu mu taxaw taxaw taxaw fond baabaa ko téye. sëñ Ablaye baa ñuy faj fajum tubaab bu ñu déggee duñu la mere. mais ñoom mais ñun xanaa dëkkuñu ci dëkk bi man la fañ faj naa ko. faj naa cotation yooyu yëpp mën ngeen cee wane comme ay preuve ma wan leen ci kon jabet amul waxuma waaw mais dama ni mhm. feebar bu ci saytaane laxasoowul yomba faj feebar bu ñu dem ba télé ni dagg rek jàppale saytaane la kon ñi fi jabet ñëpp ba ñuy dagg seen tànk saytaane la cee laxasu mais lu waral tànk bi ni diis ni kodd rek taxaw benn place parce que ngelaw la ko suukar saa nekk foofu non suukar mën na néewi leen noonu tànk ah man day fi mu tol nag mbokk internet Khass TV man maa ngi bëgg a. maa ngi bëgg a jaaxle sëriñ Abdou borom xaas. suukar manta suukar. Mhm. manta néewi loo noonu tànk jinne mooy dugg sol fa ngelaw lu bon. ngelaw li mooy goofle sa tànk ba mu diis gann ba doo ko attan ñun da ngay gis ñu la koy fajal loo ciy diw rek lañ lay jox. ngay diw muy wàcc ngay diw muy wàcc ba mu war sa tànk. sëñ Ablaye médecin yi dagg tànku nit ñi kon balaa ñuy daggati tànk est-ce que dañu la ko indil. way yemul sax ci dagg tànk rek pourtant médecin yi man du ma leen sikki de xam nga du ma leen sikki mhm. ñoom ku ci seen doom tollu foofu mhm. wala seen waa kër tollu foofu guddi nga fëgg sëriñ bi ah wallahi yàlla xam na ko ak yeneen bi du caaxaan de ah mbokk internet xaas TV loolu yéeme na de ah xam nga dëgg dëgg la yàlla bëgg xam nga ñoom xam-xam lañ yor di ko def sëñ Ablaye am na médecin yu lay fëgg xaaju guddi indi la seen doom wala seeni soxna pour yow nga fajal leen waxuma la fi léegi nit dina feebar benn médecin jox ko numéro sëñ Ablaye ni ko demal ci sëñ Ablaye nga di ko nangam ak nangam yàlla xam na ko ak yonent bi c'est-à-dire li ma lay wax preuve laa ci am. léegi sëñ Ablaye comme ni faju mm, rab ak jinne dañoo wute wala déet. waaw ah, wute na. ci naka <laughs> xam nga lu ma ci metti nag. Mhm. sëriñ si yëpp jinne la jox da nga gis gis naa da nga gis rab day dugg ni sax ñu jinne la te xoola mu ngi mel ni chinois bi chinois bi. Mhm. xam nga chinois bu rombee nii looy wax kee chinois la. bu dee tubaab bi la wax kee tubaaba. Ah. wala ah kee de naar lay nduru. waaw ah. oh, noonu lañ may amee ñoom ay différent kon daal yéen fajkat yi yéenay xamee ni rab bi kii lii rab la lii jinne la. meeloo jinne mhm. mu ngi mel ni jëmm joo taxawal. fi nga xam ni fa la jumbuxu nit nekk. yow sa jumbux fi mu nekk. Mhm. bëti jinne fa lay xoolee. bakkani jinne fa la ne. gémmiñam fa la ne. boo déggee ñun la jinne du gestu. loos bi moo am benn bët fa lay jisee moo tax jinne du gestu. kon bokkul ak rab benn instant bokkul jinne meloom dëggantaa njaay noonu la ko yàlla bindee. dañu la jinne ak rab ban moo ci gën a soxor. même su benn lañ rek. benn ñoo bokk nem la ñu def ci ci ci ci. da di jinne da di problème am mooy boo gisee nit di daanu di crise ndox di génn loolu du jinne rab la mooy yee ci sëriñ si. boo ko hmm? bëggee paj paju jinne du sotti jinne kenn mënu koo jàpp ci safara man faj naa jinne di ngeen ko wane jàpp ma ko ci safara. jinne ci tur yàlla nga ko mën a jàpp te xoola nànk ngay wirdu muy lakk hmm? wala ngay tari alxuraan nànk muy lakk mais pas nga jug tim ko di yuuxu yuuxu yuuxu taxul mu génn day lakk wa ilaa bu la neex nga fatt ko ci tànk yi muy génn moom du dese bakken ça dépend da ngay gis nag jinne ji bu fekkee desewul bakken ci jëmmi ki ngay faj nga koy xamee da ngay gis mu de cër yi dara du yëngu hmm. ñaar mbokkam yi ko indi sax dañuy tiit jàpp dafa faatu yaa ngi fan fi ne ah yaa ci tànk yi xanaa li nga fi yàgg tax mën a koo gaaw génne ah tànk ban nga ci bëgg a génne bu ndijoor wala bu càmmoñ bi ah wax ko lu mu tudd ah, ndeyjoor ah. foofu nga bëgg génne ah. léegi boo génne fa foo jëm ah ah waxoon na yërëm na fu mu gaaw di ngeen ko wane parce que dootul yëg dara ci yaramam dana tëdd lu ma 30 minutes door a jug fekk boobu affaire ba dem na bokkul mhm. noonu la demee waaw. ah mbokk internet xaas yaakaar naa ne ñoo ko déggandoo tey moom Serigne Abdoulaye Diop xaas man man tey damaa yéemu ndax dafa mel ni borom xaas bi ngi tendance yeneen mbokk fajkatam yi mbokk internet xaas TV. Hmm? xam nga tey nee naa la. am naa ci ay xarit man daal sëñ bi tendance laa ko jàppee c'est-à-dire man moom mbir mi tendance laa ko jàppee tey yéen mel ni sëñ nee na yeneen yéen yeneen fajkat yi sëñ Abdoulaye Diop xaas nee na mënul leen dara xamul leen dara moom moo mën wala mooy xalif général kul xam nga erreur bi rek mooy moom moo mën kenn mënul ko dul yàlla kon léegi fajkat yi naan ñoom mën nañ faj lépp nag loolu est-ce que loolu mun na nekk ñoom ci seen bopp feebaral leen yu bëgg a rey te mënuñu ci dara fajkat bu la wax man mii du ma ni damay feebar. kon ñi nekk ci télé yeeg rajo yi di def ay eh, bande annonce naa damay faj nangam faj ma dama ni ñoom ci seen bopp ñu ngi wéyaale feebar boo xam ne boo leen boo leen gisoon ci ni leen garab bi da koy faj tey tey ñu xooj ko naan c'est-à-dire ki mën mooy yàlla xam nga ñun suñu faj bi li tax mu garaaw mhm. nit a ngi dem di bay ca àll ba mhm. wala nit a roose mën naa la giñ ci yàlla lim xam-xamoo ko mhm. moo tax tey dafa am solo ci nit est-ce que yaa ngi comprendre. Mhm. tey nit a ngi bay boo xam ne bu ne tëlli toog jinne yi ñëw wër ko lu mu sant jinne yi ñu def ko te fetele du ko jël écran du ko jël. Mhm. pour wax la yow ne bi nga xam ne yàlla wërsëgale na ci tuuti. Mhm. parce que yàlla day fay able. dégg na la tuuti nga mën a jàpp rab di gis jinne di leen woo di jëflante ak ñoom ci côté bu nekk bu mu na nga jàpp ne yow moom say fini déedéet bu fekkee da dem ba yow jinne boo ko neexalul dara mënoo ko ci kon amatul njëriñ. neexal bi mooy rey musoo musoo jàpp jinne wala rab am si ay jafe-jafe yu metti maanaam ngeen xeex laale ah am si ay jafe-jafe. li ma lay wax dafay am am na témoin man nga am ñëw ci jël comme témoin c'est-à-dire toll naa jamono boobu ndëri dafa nga laal jinne joo xam ne dafay bon. Mhm. wala nga génn jinne joo xam ne dafa yàgg ak nit mu dem définitive mais mais après conséquences yi nga ci amat day wetti parce que tey sa lampe tout le temps mën nañ koy toj man këpp nañ sama oto un jour. Hmm? wallaahi yàlla xam na ko am nay seede. pour wax la non bien sûr rab la mais dafay am risque toujours mais en général man du tax ma neexale pourtant lool loolu këppoon sama oto bu fekkoon ba kooku ñëwee dama ko ni génneel sarax bi ñu rey ko du tax jinne ji def ma loolu daf may gën a kontaan ci man gën a sonal kee mais du ma ko def mhm. damay insister pour nit ñi sëriñ bu lay reyloo bàyyil bul dem mhm. lii ma maa wax waa kon daal xar yi ñuy génneeg nag yu ñuul yeeg ginaar yeeg yëpp nañ ko moytu sarax dees koy moytu sëriñ boo dem mu ni la génneel wala génne lii wala génne lee moytul gis nga ni des fois mu tëj boppam. ci ah waaw ah, mais mbokk internet loolu yéeme na trop. may maagale ñu des fois chaque jour ñu gis kuy xëy. yore mbusum soow wala suukar wala sondel wala leneen di ko saraxe. waaw ah. nga ni dañ ko moytu. te yàlla nee na sarax dafa dafa bokk ci ci ci ci dafa baax la dafa baax waaw. waaw léegi imaginer tey ki jënd juróom-ñetti puso sarax ko gumba lan la ko jël lan la jariñ gumba ga. moo ma jaaxal. déet da koo lor. gumba gumba gisul nga sarax ko puso yow loo ko def loroo ko mhm. mais sarax bi am njariñ lañ la wax sarax bi nga xam ne da ngaa xam ne tey kii kat tey su ma ko joxee lii dana ko jariñ wala nangam nga bett ko ak xéwal ko jox ko te yàlla tax mais pas bi ngay sarax pour jinne wala leneen loolu baaxul mais sëñ Ablaye Diop des fois nga gis koo xamante ni ay mbiram dafa xaw a dëgër ñu ne ko génneel sarax sangam pour loolu situation mën a décanté naa la génneel ci yàlla bëri ñoo xam bu ñu génnee sarax doon am fukk bu ñu génnee sa amatuñ benn nga ni ma waaw xam nga lu waral loolu parce que ñoo tëj seen i buntu wërsëg nit ki da ngay xam biddeewam xam rawxaanam door koo loo sarax mu jariñ sëriñ bu la tanewul tanewu la xam nga tey sëriñ ñaar da ci am mhm. ki nga xam ni fukki dërëm rek la soxla ci nit ki mhm. am kooku fukki dërëm la soxla ci nit ki mhm. nu ko mën a amee rek da koy jël mais boo ko ki nga xam nag yàlla as tuut bu doon tuut may na ko du sonal nit ci dara pour jëm ci xëcc pour dara amut déedéet du ci dox man daal loolu laa waaw sëriñ Abdoulaye Diop borom xaas yaakaar naa ni waxtaan bi neexoon na lool tàngoon na lool xam naa ne sax mbokk internet yi doyaluñu mais lan mooy sa kàddu yu mujj. di santaat yàlla di julli ci yonent bi. di ñaan sunu dëkk bi di Sénégal yàlla def fi jàmm. Mhm. di ñaan mboolem dëkku jullit. Mhm. ak ñu dul jullit ñëpp rek sunu borom def fépp jàmm. Mhm. di ñaan élection yi di jub si jar na tiit yàlla def sunu dëkk bi jàmm. jar na mais jar na tiit lu ñëpp di xëccoo. moom yaa am na loo xam ne jaruma wax xamul tey lu fukki nit rek di xëccoo wala lu ñaari nit di xëccoo jàppal ma jàpp dina am coow. rawatina lu toll ni dëkk mais loolu beneen émission la ah wax de ñaan rek yàlla def ci jàmm am naa ci sañ-sañ ah. yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen am naa sañ señ ñaan en tant que jullit suñu borom def suñu dëkk bii di Sénégal jàmm képp koo xam ne nag yaa ngi yëngu ci li may yëngu di la ñaanal jàmm suñu borom defal la jàmm di ñaan rek ñu booloo doon benn sunu biir bàyyi li nga xam ne nag chaque jour rek yaa ngi top benn nit ki di wax amatul benn sens mhm. wasalaamaaleykum waaw mbokk yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo trop dañ leen di joxaat rendez-vous ci la chaîne de vos souhaits ak beneen émission ànd seeg sëñ Abdoulaye Diop borom xaas jërë ngeen jëf à très merci beaucoup